fale mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi trop c'est trop mbir mi dafa ëpp léegi yi ñu sa jógee du auditer samay doom ñaari doom yi nga xam ne liggéey nañu gouvernement procédure laa respecté dañ song ma dóor ay coup de sommation mais ki la rey yow yaa ko ëpp yaa ko ëpp droit kon mën nga koo rey mandat bi moom lañ may fale mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi mbokk yi ànd ak ñun ci télévision Futur Média ñi ngi leen di nuyu ñi ngi dellu si ak yéen ci seen émission faram fàcce ni ñu koy amalee àllarba bu jot Euh, dellu si nañu ci ak yéen mbokk yi di leen euh, gërëm bu baax ci ànd bi ak euh, ñun fas yéene di ko ak yéen nag ci émission bi di ci ànd ak ki nga xam ne mooy El Hadj Oumar Youm mooy jëwriñ ji ñu dénk lu aju ci wàllu gox-goxaan yi waaye itam mu amee kàddu gouvernement bu Sénégal ñu koy gërëm bu baax ci wuy si bi nga xam ne wuy si nañu ko tey monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu. am nañu mbégte bu yaatu wax dëgg yàlla ci dellu recevoir la ci faram fàcce ñu bàyyi la rek nga nuyu ak mbokku téléspectateurs yi. waaw ñu ngi lay gërëm ci invitation bi di nuyu sunu mbokk yi ñuy seetaan. ci mhm. Sénégal ak bitim réew. Euh, di profiter ci occasion bi di leen baalu ak di baal ñëpp ak. Mhm. di ñaan yàlla weeru koor bi ñuy dugg yàlla ñu ko yàlla yombalal. Mhm. Euh, nangul ñu jàmm yàlla yu ñu ciy def yëpp. te lépp nekk yiw ak wér ak sutura ak jàmm. ak naataange ci Sénégal. amiin alors monsieur le ministre man laaj bi ma bëgg a commencer rek mooy ndax jotul nga def choix ci sa ci sa casquette politique ak casquette officielle bi ngay amee ndax jotul nga tànn ci benn parce que lu tax ma wax loolu mooy danga nekk politique certes waaye itam da nga amee kaddu gouvernement saa yoo yëkkatee kaddu dafay officiel. Mm. alors est-ce que jotul nag nga def choix nga nga xalaatuloo nii war nga mën a def la part des chose ci ci ñaar yooyu. waaw xam nga moom euh, casquette politique bi moom. Euh, jàpp naa ne euh, euh, réalité la. Mhm. casquette porte-parole gouvernement bi aussi réalité la. Mhm. donc parce que lii mooy indi lële jàpp naa ne ñaari amul conflit amul incompatibilité. amul conflit amul incompatibilité mhm. sinon kon duñu ko def. dañu nekk ci système boo xam ne c'est un système présidentiel. waaw xam ne président bi il est en même temps président de parti. ah euh, député yi bu ñu leen investir dañu leen investir ak parti et cetera donc bon je pense que euh, ñaari fonction yooyu c'est des fonction cumulables waaw Euh, maintenant après li muy laaj mooy effectivement euh, euh, discernement daf koy laaj. Mhm. dinay laaj aussi engagement. d'accord dinay laaj aussi peut-être ñuy def effort. waaw de telle sorte que mu bañ a am ay chevauchement yu metti tout à fait alors ça demande un exercice quand même très difficile. léegi discernement boobu ak effort yi mu laaj. ndax yaa ngi mhm. koy bàyyi xel parce que monsieur le ministre parfois boo waxee nit ñi dañuy jaaxle. Mhm. lu jëm ci mandat président bi da nga ci sa kaddu. loolu jaaxal nit da nga nekk président joxe engagement bu clair ci askan wi. donc boo ci amee position. ba wax ko. mais loolu est-ce que def nga discernement ci ñaari casquette yooyu par contre c'est bien nga poser ma question boobu. xam nga dañu nekk ci dëkk boo xam ne peut-être aussi euh, xalaat ak réfléchir ak dañu gëm liberté mais souvent nit ñi duñu xool boo waxee nan la ñuy apprécier wax bi xam nga liberté d'expression la ñu nekk nekk ci ay mouvement politique nekk ci ay mouvement associatif euh, ba pare di dama contreposition wu président de la république. dañu nekk ci assemblée politique boo xam ne dañu def bilan wu président de la république ñu mhm. invité ma. Mhm. ma exposé ci bilan bi li ñu réalisé yëpp ba pare. ne jot na nag léegi euh, à deux ans euh, éventuellement du renouvellement du mandat. Mhm. que parti bi commencé waxtaane affaire mandat bi. instance euh, war a wax aussi monsieur le mais xam nga c'est une décision politique quand même. waaw te boo ko waxtaanewul si biir dinañ ko waxtaane si biti. donc mieux vaut ñu waxtaane ko si biir harmoniser ay position tënk dara que ku nekk di wax si biti te euh, dafay doy waar. donc loolu ci sens boobu laa ko waxee. léegi sa position nekkoon ci lan ci mandat bi non su ma position nekkoon ci ne wax dëgg yàlla war nañu waxtaanee affaire mandat bi. non war nañ ko waxtaanee non wax naa ci wax naa si li ma xalaat. wax naa si li ma xalaat. baamuwaat ko s'il vous plaît répétez ko. non non jarul ma koy ah, baamuwaat. Ah, parce que xam nga gannaaw loolu. wuyu ma soo ci dellu waatul kon waroo ko woon a wax. non c'est pas waruma ko woon wax. xam nga nit aussi dafa am loo xam ne daf lay tënk. waaw bi ma si waxee. Mhm. ñëpp waxtaan nañ si ñu ñëw si parti bi le président du parti ne nañu ubbi ay penc. waaw pour waxtaan ko à l' intérieur du parti. ba mhm. mun a am position. ok mais loolu je suis obligé respecter ko. d' te yemul foofu sax Kaffrine jox waxaat na mandat bi pare leen ci bu ci kenn waxati kon jot na aussi ngeen noppi ci. voilà ñu noppi ci nag. alors pencoo ko d' accord alors monsieur le ministre bu loolu passé itam dañ la dégg rek barki Dembo Ndiaye nga dal bu baax ci kaw Amath Dansokho. Mhm. dal boobu nga dal ci moom itam euh, yaakaar boo defoon discernement. nga bàyyi xel ni kat da nga amee kàddu gouvernement yaakaar naa doo génne noonu jàppaloo ni boobu itam njuumte la. non euh, du ñëwaat sax ci ci wax bi euh, li ci am mooy euh, wax moom boo ko xasee génne ba pare moomatuloo ko. Mhm. nit ñi ñoo ko moom. waaw nit ñi ñooy apprécier. appréciation yooyu ku ci nekk ak fi nga toll ak sa tolluwaay ak sa niveau d'analyse ak noonu loolu loolu mooy nekk. Mhm. yow nag yow yaay xam ne boo ko xasee wax génn na nit ñi ñoo ko moom feedback boobu ngay am si waxu nit ñi moo lay permettre peut-être ngay def ay ajustement s'il faut ajuster ngay def ay correction s'il faut corriger ngay def aussi euh, ay amélioration s'il faut améliorer mais pour man euh, bi ma ko waree wax wax naa ko euh, fi ma ko waree wax defe naa wax naa ko li ci des nag mooy effectivement moomatuma wax bi moomatuma aussi liberté nit ñi apprécier li ma wax ba mun ci def seen i analyse ñu bi nga jotee feedback bi mu nekk retour bu bàyyi ko ci askan wi jàppoo ni juum nga jëmale ci Amath ko egg ci ba dem ci ci loo xam ni itam euh, ci ban moment la doon waxee wax joo xam ni daal tegginuwul nga jëmale ko ci ku mel ni Amath Dansokho xam nga moo tax ma ne la euh, nit ñi bu ñuy analyser wax dañ koy dëkkal foo xam ne parce que kii kii xalaat ci li nga wax boo amee njort bu ñaaw da koy dëkkal fu ñaaw boo amee njort bu rafet da koy dëkkal fu rafet mais Euh, soo ko xoolee yow nga liir ko tranquillement bañ kenn influencer la di nga xam ne amul benn wax boo xam ne nii déborde na wala waruñu ko wax wala maintenant nag yow boo waxee mhm. niñ koy dëkkale ak fañ koy yóbbu mhm. loolu mooy indi peut-être différence sànq ci liberté d'expression wax nga ko bi nga may tontu ci ni nga gisee woon mandat bi ndax jàppaloon itam ci respecter liberté nit ki rafet na ama dans su ko wax xalaatam nga nga bien sûr nga nangul ko non mosuma wax ne warul man amul liberté wax mais dama ne boo amee liberté wax il faut aussi nga may liberté ñeneen ñi ñu apprécier wax bi prononcé wu ci et puis euh, loolu loolu mooy problème bi. waaw mais nit ñi nga wax mais nit ñi yow doo ci n'importe qui. oui nit ñi aussi yàlla dafa def ci yow ay mandarga yu war a mën a tax aussi booy wax mais euh, waaw tout à fait loolu mais mais léegi bu ñu demee ba yéen le ministre d'État ak le bu ñu fàttani ne ma dans ce ko ministre d'État la mhm. bu ñu demee ba kàddu di jóge ci yow di dem ci moom mais loolu lan lay nuróol ci ci ci gouvernement non non du question pëccaxoo loolu sax du ñàkk gouvernement euh, lieu de travail équipe de football euh, nangam nangam fu ay nit di daje il faut mu am ay divergence de vue il faut mu am ay wax yu safaanoo mhm. il faut mu am ay coow yu ndaw donc loolu moom Euh, quel que soit Alpha muy France muy feneen gis nga avant ñuy remanier gouvernement France ak euh, François Hollande gisoon nga am na ay tendance yu xaw a métti métti ci biir gouvernement bi donc loolu c'est normal parce que ay nit yu daje bokkuñu fu ñu jógee bokkuñu trajectoire bokkuñu ay histoire bokkuñu peut-être ay éducation et cetera donc dina am tuuti ay jafe-jafe. D'accord bëñ ak làmmiñ ñoom ñoo bokk. mais souvent day am day am ay gaañu gaañu ni ko olof Ndiaye léebe. donc loolu c'est la réalité. du wax boo xam ne man personnellement parce que moi je quand même euh, yàgg naa si politique yàgg naa ci di yëngatu yàgg naa ci gouvernement bi. kenn mësuma dégg may may dàggasante ak ay nangam nangam. donc ah. loolu c'est pas man du suma cër peut-être man dama ci nu nekk. d'accord mais par contre euh, euh, li ma wax. dama apprécier benn wax boo xam ne benn membre gouvernement bi moo ko wax man tamit moo wax ne wax boobu duma ko mën a comprendre ndaxte lii ak lii ak lii ak lii ak lii. du dëgg da am loo ci yokku donc la ca des. lan laa ci yokk nga ci yokk ni ci ban état la ko waxee. moom am xam nga boo waxee état yow xam nga am nooy xalaate. waaw yow bu dee sa njort rafet na dina am man leneen nu may xalaate. Parce que l'État, ça ne veut absolument rien dire. Non, non, non. non. Ça ne veut absolument rien dire. Non, non. Ah, mais Monsieur si, le ministre, si, si, si, si. Certes qu'avocat. Ah non, ce n'est pas mais... question <laughs> d'avocat. si, si. Mais moi, je me dis D'ailleurs, je me dis bon État. Madame Bantolwaï, le King Hamia, dans ce qu'on est, qu'on est comme est que fait que comme sonne est que ce pas un coup fatigue est que nangam nangam Lol la wax. bu léegi nag bu keneen xalaatee loolu yow yaa ko xalaat c'est responsabilité parce que sa xel moo fa àgg mais donc c'est ça la réalité moo tax ma ne la nit suy wax souvent xam nga li nga war a xool pour nga mën a analyser waxu nit il faut nga defal ko gride de lecture xam kii est-ce que dafa yabaate wala kii est-ce que dafa réew wala kii est-ce que dafa dof kii fu mu juddoo kii fu mu def lii ku mu en fonction de grille d'analyse boobu ngay war a xool porté waxam nan nga koy analyser. d'accord mais tant que loolu doo ko def bay analyser c'est-à-dire yow da ngay analyser waxu nit par rapport ak sa ak sa ak yow même. waaw bon la nga cay tirer comme conclusion wax dëgg yàlla yow lay yow lay. importé ndax amoo loo ciy regretté loo ciy rëccu. très honnêtement aw ma dara lu ma siy regretté. ah ko jotoon nga waxaat ko. je sais pas euh, bu waxaat ko jotoon mais xam nga le contenu des messages ak les mots mot à peut-être doo ko waxaat mais euh, dans l'essentiel c'est-à-dire si l'affaire se reproduisait dans l'essentiel li ci am solo mooy dinaa dinaa wax ne lii warta mën na ne parce que pourquoi parce que gouvernement dafa am ku yor parole gouvernement mm-hmm. euh, ci biir gouvernement normalement gouvernement mission mooy rassurer les populations mm-hmm. cultiver espérance. jéem a xeex souffrance yi jéem a xeex ay difficultés yi jéem a indi ay réponses aux doléances des population donc normalement euh, dafa am kàddu yoo xam ne warul jóge ci membre du gouvernement. su dee leeraluñ ko ba mu leer ndàññ. parce que boo nee boo waxee loolu rek ne le pays en danger. te leeraloo lan moo sëslaay sa kàddu yooyu pour ñu xam. Mhm. xam nga déjà am nga ñoo tiital. waaw am nga aussi ñoo dàq. am nga ñoo xam ne boo moytu. est-ce laaj lu mu ci jublu balaa nga koy tontu. non man c'est-à-dire préciser naa rek parce que xam nga aussi léeg-léeg il faut avant tout da nga war a calmer les esprits. d'accord waaw c'est dans cette optique mais pas dans une optique de conflit wala nangam nangam et cetera. d'accord d'ailleurs yéen boo leen suivre lépp au fond. nee naa mais ministre d'État. bokk na d' abord ci ñi nga xam ne moom le président gën a jox cër xam nga kon man mënu ma wax deux choses c' au contraire mënu ma ne kii président da ko jox cër après ki nga xam ne président da ko jox cër ma koy manqué cër mënul am sens d' accord d' accord alors ci leneen la daal di dugg monsieur ministre xam nga nag euh, juin bi ñu génn daanaka ci lañ duggoon ci élection locale yi nga xam ni euh, ñu bari daanaka falu nañ ci boobaak léegi euh, am na at presque ñi ngi jëm ci 29 maanaam li ci des bariwul sax ci ñu célébrer li nga xam ni mooy atu yàlla boobu tey bilan bi lu ci bari coow la. partout mhm. ci collectivité locales yi. Mhm. acte trois de la décentralisation. Euh, coow yi mu indi. kenn mënu la ko wax ndax jàppaloo ni aussi gouvernement bi am na ci responsabilité boo demee xool la nga xam ni moo xew fii rek. Mhm. Euh, ci euh, ci ak Barthélémy Diaz ak la mairie nga dem fële ak Petersen ak Aliou Ndoye ak yeneen ak yeneen exemple yu récent yi laa la mën a jox ndax jàppaloo ni loolu am ngeen ci part de responsabilité. non amuñu ci part de responsabilité cest il faut nit ñi aussi comprendre. réforme bi ñu ko yëkkatee dañ ko yëkkati pour defaraat collectivité locale bi. Euh, euh, organisation territoriale bi. Euh, joxaat leen un peu de responsabilité. dafa amoon ci biir collectivité locale yi collectivité locale yoo xam ne presque collectivité locale irresponsable la ñu woon. Mhm. c'est-à-dire que dañuy nekk moom la ñu tuddee woon commune d'arrondissement ak communauté rurale. Mhm. xam ne wax dëgg dañ leen di yemale ci seen lépp communauté rurale dañ ko naan cinquante millions d'investissement mënoo ko dépasser même bu doon am na xaalisu Euh, un milliard de budget comme euh, ay communauté rurale yu mel ni Touba. Mhm. comme ay communauté rurale yu nekkoon euh, ay Malicounda et cetera dañ mhm. leen di limité te pourtant am nañ ay budget cent millions ëpp doole fuuf commune. Mhm. ëpp leen population. ëpp leen superficie. d'accord ba pare amuñu sañ-sañ yi commune am. d'accord ñu ne nañ gën a responsabiliser donc réforme boobu réforme de responsabilisation. loolu loolu rafetlu nañ deuxièmement ñu ne nañ leen jox tuuti démocratie locale. <laughs> d'accord boole li ñuy wax participation citoyenne nga xam ne depuis sunu constitution. li ñu bu ñuy définir collectivité locale dañu ne c'est le lieu de participation des citoyens aux affaires Tout à mhm. mais gis ñu ne am na lien entre gestion municipale ak participation d'accord ñu ne nañ jël loolu dugal ko mu nekk benn notion bu bees mhm. nga xam ne dafay nekk benn outil d'animation teritoriale mhm. nga xam ne acteur yi nekk ci biir territoire bi opérateur économique société civile les ONG ASCI et cetera cetera dinañ leen boole ci ay kuréel yu ñu tuddee cadre de concertation ñu mën a dugg ci affaire bi donc réforme bi loolu mooy esprit réforme bi am na solo ñu def ko ñaari phase bi ñu koy def réforme dañu ne ñaari phase lañuy def mhm. benn phase yi mooy phase organisation maanaam structuration responsabilisation mhm. euh, dugal ci notion yooyu participation citoyenne dugal ci euh, genre maanaam collectivité locale dañu koy gérer dans le respect de genre et cetera dugal si yooyu yëpp ak ay parité yooyu ñu dugal ko si. ñu ne loolu mooy première phase bi. d'accord loolu xam nga lan la indi département comme collectivité locale. communalisation intégrale. maanaam fépp fu ñu mën. fu nekk nekk commune et cetera. d'accord loolu mooy première phase bi. Mhm. je pense que dégguloo benn critique bu la ne département waruñu ko def collectivité locale. déggoo benn critique bu la ne. commune d'arrondissement waruñu ko woon transformer commune. Mhm. de plein exercice déggoo benn critique bu la ne communauté commune de plein exercice. donc loolu mooy première phase. maintenant xam nga pourquoi doo ko déggee. parce que ki fa falu du ko dingat ñi nga xam ne aussi ñoom lañ ko defal. dañ koy bëgg pour pour commune boobu ñu mën ko ñu ñu mën ko moomale seen bopp. Pape bu doon baaxul xam nga yow sénégalais. Mhm. ils sont très libres bu doon baaxul. même bu ñoom duñ ko waxul. di nga dégg ay universitaires yu ne lii baaxul. wala nga dégg ay. Ah experts universitaires experts yi wax nañ ko. bari nañ loo xam ne dañ ko dañ ko dañ ko diigaat ci li nga xam ne mooy. non non dégg universitaires yi bari ci loo xam ne itam ànduñu ci. non man dégguma bokk critique boobu yow de bu dee dégg nga ko nga wax ne critique bii la ñu wax. ci départementalisation critique bii la ñuy wax ci communalisation critique bii critique parce que ñun justement bi ñuy def réforme dañ ne réforme dañ koy def dans un de concertation Euh, comité national de pilotage ay professeur d'université moo ko jiite commission yi gën a am solo ay professeur d'université ñoo nekk seen président mhm. ay expert décentralisation nekk ci biir association élus yi nekk ci biir comité bi donc jàpp naa ne ñooñu de waruñu mun a def liggéey boo xam ne danañ ko diingat diingat bu am solo par contre comme phase ñaari phase la entre les deux phases mhm. dafa am problème boo xam ne il faut que ñu accepter ko ne effectivement euh, phase transitoire bi dañu war a accompagner collectivités locale yi. d'accord ci seen insuffisance de moyens. Mhm. en attendant que deuxième phase bi ñëw ñu régler problème fiscalité bi. parce que problème mu fiscalité boobu mooy permettre nag collectivités locales yi. mën a mun a mun a am xaalis. parce que souveraineté politique bi am na solo. mais souveraineté financière bi moo ko ëpp solo. ci ah, décentralisation waaw d'accord mais est-ce que loolu kon mënuñu wax ni dañu jiital euh, médecin bi après la mort. non parce que loolu mooy li indi coow li actuellement dégg nga kàddu yi nga xam ne moo tukkee ci le maire Barthélémy Diaz fiscalité am ngi koy laaj mu tegu ci loxoom nu mu gën a gaawee bari na aussi interpellé ci am na lu indi coow ci seen diggante ndax jàppaloo ni kon médecin après la mort la. non du médecin après la mort c'est-à-dire que déjà balaa ngay jox nit dara dangay ngay taxawal defal ay cëram cër yi lañ taxawal ba pare. après bi cër yi taxawee ñu ne léegi nag nañ ko jox lu ñuy dundee en attendant li ñuy dundee ñëw mooy maanaam deuxième phase bi nga xam ne comité national de pilotage pare na liggéey bi. waaw léegi mais mais monsieur le ministre fileeg loolu di ñëw alors que moom li ko war yëpp mi ngi ko war a def par exemple bu dee hôpital moo war a fay ña fay liggéeyi. Euh, bu dee yenn liggéeykat yi moo ko war a def kooku boo téye fiscalité bi naan ko xaaral deuxième c'est-à-dire que moo tax d'ailleurs ñuy mën a laaj ay taxes sur la publicité parce que loolu droit la moo leen ko jox ñuy mën a laaj ay taxes sur euh, bu dee ville yi ay patante bu dee marché yi tey marché bu euh, commune bu am marché ci sa biir euh, kii bu doon commune d'arrondissement nga marché boobu yow yaa koy yaay recouvrer taxes yi fay mm-hmm. jógee maanaam yenn patante yi nga xam ne moom la ñuy fay ay ticket cent francs mille francs et cetera mm-hmm. bu dee ay cantine ñu nga fa yow yaay fayeeku loyer cantine bi et cetera donc fiscalité bi ñëw na mais fiscalité bi moo doyul moo leen doyul tey tey tey tey ci phase bi ñu nekk pour mun a compenser charge yi nga xam ne jot nañ ko. d'accord donc loolu nag ci phase transitoire bi dañuy wax rek te yàlla tax waroon nañu état bi. def effort yu bëree bëri pour accompagner collectivités local yi nga xam ne vraiment pour leur permettre d'avoir des budgets équilibrés mm-hmm. et donc de renforcer un peu leur solvabilité loolu moom il faut reconnaître mm-hmm. du lu ñuy nëbb parce que waxtaan nañ ci ak ñoom mm-hmm. plusieurs fois xam nañ ne aussi waxtaan nañ si ak ministre des finances plusieurs fois maintenant président joxe na ci ay instructions aussi pour ñu accompagner leen mais xam nga ne xaalis bi kenn du ko luxus donc il faut il faut surtout période bi nga xam ne ñu ngi nekk ci période du financer PSE bon il faut ñu ñu trouver ay solution d'accord boo ko dul ñu ngi ci solution yi man jàpp naa boo luxus aussi di nga ko liggéenti dañ koy fekkente ni yor nga yor nga par exemple benn commune d'arrondissement euh, mu mel ni fi nga xam ni moom mooy euh, Dakar Plateau li fa xew Petersen faaw ñi fa nekk di nga xool noo koy réglementé loolu bokk na ci ni ngay liggéente peut-être ay recette loolu nag mën na indi coow coow yooyu muy indi itam ñaare lan nga ci mën a indi ci ay leeral man li ma si mën a indi si mooy <coughs> euh, ay nit comme ni ñu ko ñun sunu mbokk Lebu yi di waxee wat gaal ak yëgu cest que ki nga xam ne tey moom mooy opérateur économique di la fay ay taxes yow ngay nangu taxes yi di ci liggéeyal euh, collectivité locale bi da ngeen war di waxtaan mhm. bon ak ŋaayoo bi euh, amu ci solo mhm. li ci gën a am solo mooy waxtaan mhm. waxtaan ak ñoom ba ñu comprendre man mii maire la bi ma ñëwee dama yokk tuuti fiscalité bi mais euh, euh, population bi commencé war nañu mer bi ñu toogee waxtaan ak ñoom ne leen lii parce que ñun charge yi lañ am charge yi lañ am charge yi am. Mhm. ba sensibiliser leen. mais dafay créer benn benn benn benn civisme fiscal boo xam ne man tey ñoom ñoo ñëw fay si. cest à du ñu dem recouvrer leen ñoom ñooy regroupé wu collecté seen yëf ñëw fay si maire yi. Mhm. donc waxtaan boobu dafa am solo. concertation bi dafa am solo. Mhm. parce que loolu mooy permettre nag ngeen mun a nag def seen développement dans dans des conditions de concorde d'entente mhm. waaw parce que loolu mooy mooy aussi énergie bi créer développement mais bu dee yow da ngay da ngay xuloo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo war a nekk say opérateur économique parce que ñoom ñoo yore assise économique bi locale donc ñoom ñooy indi alimenter commune bi ñooñu danga war a waxtaan ak ñoom bu ñu demee nag ba fay li nga mhm. xam ne yoon daf leen teg yoon ñëpp la fi nekkal euh, euh, commune yëpp am nañ ay outils pour force ki nga xam ne dafa war a fay euh, fiscalité ñu forcer ko pour mu fay comme ni ñuy forcer ki nga war a xam ne dafa war a fay fiscalité d'état ñu forcer ko mu fay. parce que du ñëppay fay impôt. Mhm. Sénégal du ñëppay fay impôt. mais est boo fayul sa impôt d'état dañuy ñëw toj sa kër. wala ñu ñëw yàq sa oto. wala nangam na voilà donc loolu rek mën laa ko waxee. mais donc loolu aussi esprit boobu je pense que il faut ñu koy ñu koy demee pour gérer pour gérer affaire parce ngay defal tey suba euh, histoire moom ngay àndal suba. parce loolu da nga ko soxla. da nga ko pour am se itam xam nga il faut nga désencombrer pour am recette il faut que nga nga nga tabaxaat pour am recette il faut que nga defaraat mhm. alors tabaxaat boobu ak defaraat boobu gis nga li muy jur ci communes est-ce que loolu du du indi danger bi nga xam ne sax ama Amath Dansokho yëkkati woon na ko ndax jàppaloo fi ñu jëm parce que euh, boo gisee yenn maire yi bu Sacré-Cœur jóg daaneel na fa ay li nga xam ne moom mooy ay panneaux publicitaires mhm. ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci wàllu boobu jóg nañu taxaw loolu mënoon na indi leneen euh, waxoon naa ko moo waxaat la ko li xew fële ak ñeneen maire yi nga xam ne ñi ngi jóg ñoom itam euh, nañ ni fii mooy yoon bi ndax loolu jàppaloo ni mën na indi musiba ëllëg euh, ci commune d'arrondissement yi. non pour man bu dee ku nekk jiital nga waxtaan ak diisoo franchement gisuma fii lu am problème li ma la wax ci publicité yi ak commune boobu loolu laa lay wax ci Petersen ville dañ ko réglementé am na foo xam ne waroo fa taxaw bon déguerpissement c'est pas opération bu bu bees Sénégal. Mhm. da daan am te acte trois amul. donc <laughs> donc vraiment bu ñu lié déguerpissement ak acte 3. waaw mais acte na ko nag. non non si dara déguerpissement mm. moom. Euh, dafa daan am euh, toujours. non euh, yokku na ko bu baax nag. mais nan la ko yokkee. si si yokku na ko. non comment c'est-à-dire que aussi il faut que ñuy bu ñuy wax dañu ko teg ci loo xam ne wéeru na ci dara man je sais que avant acte 3 déguerpissement yaa gën a am ci ay marchands ambulants ñu naan jóge leen fii jóge leen fii peut-être que kii déguerpi rek moo changé. mais mais parce que mooy ville bi moo daan dëgër piir bu njëkk. léegi communes yi ñooy dëgër piir. léegi loolu moo changé. mais sinon affaire léegi nag yow par contre loolu. si waxtaan. Mhm. waxtaan si ak marchand yi. Mhm. ne leen place bii ngeen nekk da ngeen fi nekk situation bi irrégulière. Mhm. Euh, may nañ leen délai nangam parce que Sénégal ñun ñoom ñoo ko bokk. d'accord waaw ñu waxtaanee ko. parce que aussi yoon. pour ñëpp la fi nekkal. d'accord waaw daf fi nekk pour commune bi mais daf fi nekk aussi euh, pour ñi nga xam ne dañu nekk ci ay situation yoo xam ne. dafay gêner commune. bon bu boobaa bu ñu ko waxtaanee ñu ne leen lii lañ leen di defal. Mm-hmm. dañuy tabax fii ngeen dem. ñu teg leen fële. andiwaat ay cantine jox leen ko ngeen am ay priorité et cetera mm-hmm. loolu tamit ay waxtaan la. mais monsieur le ministre euh, sa gouvernement au delà de sa bi nga xam ne moom lañ dénk li ñu doon waxtaanee mais ci ci en tant que gouvernement bi nga xam ne bokk nga ci. mais war nga wax nag ak marchand ambulant yi lu ñu mën a dégg aussi parce que munuñu nekk ñoo xam ne ay sénégalais lañu euh, dëkk ci dëkk bi euh, fu ñu jógee ñu marché bu ñu nekk marché ba tàkk ñu naan kii la ko taal kële moo ko taal Sandaga ba tey ko taal kenn xam ko marché ba. Mhm. ña fa nekkoon di ay commerçant fa leen yóbbu mënatuñ gis seen ay mhm. mais marchand ambulant yooyu nga xam ni dañuy yanu seenum njaay di jaay ci taabal wala di di di bitit mbagg. Mhm. kenn gënu leen a dee ci fal leen wala wala leneen mais attends monsieur lan nga leen mën a wax loo xam ni dinañ ko mën a dégg aussi. waaw bon mooy li ma la wax c'est-à-dire que ñun aussi nekku nekkuñu euh, ministre du commerce. Mhm. loolu xam nga aussi république ku nekk ak gouvernement ku nekk am nga ay ay pàcc yoo xam ne moom nga yore. Euh, marchan ambulant yi ñun ñëpp xam nañu effort yi ci gouvernement Sénégal def pour construire li ñuy wax économie informelle bi ñu formaliser ko. Mhm. Euh, d'abord code yu bari léegi changé nañ ko. ñu ngi leen di commencer di leen defal ay mesures d'incitation pour ñu mën a def ay sociétés yu bees yu ci ay conditions yu simple ak ay montants nga xam ne capital léegi social presque wàññi nañ ko et cetera loolu yëpp pour accompagner leen la mm-hmm. euh, maintenant euh, nit ki moom commerce dafa am nu ko tëralee. Mm-hmm. dafa am endroit bu ñu ko war a defee dafa war a am registre commerce da nga war am nangam da nga war a am nangam da war a am nangam ku nekk lu muy def na nga ci wàccoo ak yoon bi nga xam ne moo ko réglementé. su ko defee franchement je trouve que du am benn coow lu ci des nag ñu dugal si tuuti yërmande parce que nit ñëpp yemuñu te xam nañu ne dañuy jaay seen doole di di di di dundal seen njaboot yooyu ñu accompagner leen euh, bon avec moyen de brutalité et ñu jéem a xool ban système la ñu ne pour kii man loolu en tant que ministre de la gouvernance locale euh, mm-hmm. du suma cër may dugg ci ay affaire u déguerpissement ay mën naa ci waxtaan ak ñoom mën naa leen dalal bi li xew Petersen déglu naa leen woo leen massawu leen et cetera mais nag la ca nekk ca biir réglementation la loolu soit ñi ko seq ñoom ñooy xool nan lañ koy waxtaanee ba saafara ko sinon ku yaakaar ne dañu jalkati sa droit wala dafa am loo xam ne def nañ la ko waruñu la ko def mais yoon nag moo fi nekk pour pour teg ñëpp si yoon. d'accord dafa am xam ne bu ñu jógee ci marché ambulant yi ko bokk muy jafe-jafe bi nga xam ne ñi ngi ci fi may wax ak yow xëy na ñi ngi ñuy seetaan xëy na seetaan ñu euh, loolu dem ba laawaale ci li nga xam ne moom mooy ndox mi euh, ki nga xam ne mooy président de la république fëggoon ci bi euh, te boobaak léegi dara coupure yi tey la gën a yokk tey la waalu gën a aay ndax loolu mooy li nga xam ne nag moom la askan bi doon xaar ci seen gouvernement li ñu doon xaar bokkoon na ci vraiment courant bu doy mais du nga xam ne moom la ñu gis ci wàllu courant ak ci ndox ndax jàpp nga ni am nga loo mën a teg ci loxo askan wi lu ñu leen mën a dalal seen xel ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel jamono ci li ma ci njëkk wax daal mooy nañu xam ne <clears throat> priorité bu ma nee priorité prioritaire mais priorité spéciale mhm. président de la république mooy affaire courant ak ndox euh, ñu régler ko mhm. euh, déjà tey rek ci conseil des ministres bi mu ngi attirer attention ci ministres yi nga xam ne ñoo yore loolu euh, pour ñu taxaw ci bu baax Euh, mënuñu def plan Sénégal émergent ak yooyu yëpp. Ah. bu dee courant amul ndox amul. tout à fait euh, mënuñu am croissance yi nga xam ne moom la ñuy xaar bu dee courant amul ndox amul donc loolu moom mhm. président wax na ko mais li ci côté bi aussi ñu xaar ne euh, dafay laaj xaalis bu bëri. xam nga mhm. dégg nga temps yi la ñu ne dañu yokk facture ndox yi yokk ci defe naa deux cent et quelques francs. Mhm. nit ñi di di kaas. mais li koy waral mooy xam nga Dakar. dafay soxla ndox. Dakar defe naa ñu ngi soxla ay cent 390 mètres cubes jour. tout à fait euh, ci loo xam ne presque source d'eau yëpp dafa xawoon na yàqu forage yi fi nekkoon dafa yàqu mbënn bi dafa fa dugg yàq ndox mi et cetera ñu war a construire 21 forages. Mhm. war a yokk loolu mais loolu il faut mu am effort national pour def ko donc effort national yow da nga siy participer ma participer si état participer ñu def. xam nga courant bi aussi pour jël exemple ñu ngi def subvention courant 80 milliards par an. waaw ah. donc xam nga kii def subvention 80 milliards par an. bu sañoon am mm-hmm. service de qualité. Mm-hmm. man récemment ànd naa ak euh, benn ministre euh, mission ci benn dëkk Afrique de l'Ouest mm-hmm. ñoom ñu ne dañuy toog presque 12 heures de temps ci quartier résidentiel. du ñu am courant xam nga à plus forte raison quartier yi nga xam ne ay quartier euh, banlieue la ñu nekk ak yooyu c'est pas une raison mais je veux dire non non la bëgg wax na rek waaw c'est pas pour rien mm-hmm. que ñuy lancer ay Power Africa mm-hmm. di lancer président bi mu demee déjà euh, union euh, sommet UA e mm-hmm. di nga li mu fa wax ne il faut quand même affaire question énergie ak ndox ñu mun ko régler dans nos pays c'est mm -hmm. très dur parce que ça demande des investissements extrêmement lourds d'accord tey par exemple pour affaire ndox bi pour satisfaire provi euh, approvisionnement ndox cest à production ndox bi. ba mu nekk ci niveau boo xam ne c'est un niveau euh, qui va équivaloir à à la demande ndox bi ñu soxla mm-hmm. mais euh, il faut nga def au moins au moins 7,5 milliards de financement. Mm-hmm. pour mun a yokk ay forage pour mun a def ay adduction d'eau pour que eau potable bi mun a ñëw ci quartier yi nga xam ne surtout à Dakar ay Nord Foire léegi monsieur le pour que pour que boobu xanaa dafa tegul ci vision bu leer par exemple vision boo xam ni itam parce que askan bi war nañ mën participer participation vision ngeen ko war a teg mais li lay wan ne ci vision bu leer la mooy déjà dama la wax ne analyse situation bi lii la joxe pour ñu génn ci situation bi lii la ñu war a def yaa actuellement SONES damuy ci benn phase d'urgence d'investissement pour ndox mën a doy dakaar président wax na leen ne leen bu ndox doyee dakaar ba pare seen première opération bi ngeen war a def mooy il faut que Dakar di am ay réserves d'eau des réserves de sécurité mm donc ñu ngi si ça veut dire que vraiment mm -hmm. y le, le diagnostic a été bien fait maintenant après le reste dama bëgg a attirer sa attention sur le fait que dëkk bu mag mhm. ak peuple ak nation xam nga fan lañ koy xamee bu jafe-jafe amee c'est pas jafe-jafe am na après on tire sur le gouvernement on tire sur les ministres et cetera bu jafe-jafe amee la war a toog na jafe-jafe bi lan lañ koy solutionner ñu ne lii ak lii ak lii sa demande tant d'effort. Mhm. ñun ñun ñëpp ensemble on trouve des solutions. Mhm. parce que ñun gouvernement li ñuy am sunu euh, xel mu dal mooy ak sunu way mooy euh, lii problème am ñu indi solution yi. d'accord peuple bi aussi solution lay laaj mais jàpp naa ne peuple sénégalais peuple bu muus la boo xam ne. Euh, bu yeewu ci mbiru àddina boo ñu leen expliquer carrément problème yi ni mu mel wax leen seen taxawaay bi ñu ci war a am ensemble on peut trouver des solutions durables waaw monsieur xam nga tey li ngay dégg ci politique li ngay dégg ci réew mi li ci ëpp politique la mhm. euh, liñ doon xaar aussi bokkul li ciy topp di ay ñàkk courant wala ñàkk ndox li ngay dégg ci mooy la xew parti démocratique Sénégal la xew ca réew mi li xew ci diggante APR ak euh, peut-être dans nga xam ni mhm. moom lëmbee li nga xam ni moom mooy réew mi Euh, te duñ ci dégg dara loo xam ne lu positif la maanaam ñu ngi inauguré fële wala ñu ngi defar fii wala ñu ngi def fële lépp nekk ay jafe-jafe est-ce que loolu. Euh, ah, laajul stabilité mais mais inauguré moom ñu ngi koy def lu bëree bëree bëree bëri. man koy def lu bëri président ministre yi ñu ngi inauguré démb euh, quai de pêche Yoff ñu ngi teg pose première pierre bi. gis nga inauguré de. man inauguré naa récemment. Ah, loo xam ne non dama ni teg pose première pierre ak. mais mooy loolu benn la c'est-à-dire que vraiment waaw pour être ñu ngi gouvernement mu ngi liggéey bu baax maintenant après est-ce que li ñuy liggéey euh, nit ñaa ngi koy xam. est-ce kàddu gi. non non xam bi bokk naa si yor mais bokk nga ci ñi war a tax ñu xam li ma la bugg a wax mooy. waaw est-ce que yéen aussi yéen ñi nga xam ne yéen ay canaux yi. Mhm. yéen a koy facilité. Mhm. xam nga aussi loolu yëpp. Euh, espace médiatique bi ci la am solo canaux yi ngay jaar pour communiquer dafa am solo mais aussi euh, est que euh, acteurs yi nekk ci espace médiatique bi ñu ngi koy faciliter boo xoolee ñun gouvernement. ñaari lan nga bëgg wax faciliter lan mooy comme yéen ni ngeen koy waxee seen jargon le train qui arrive à l'heure ne ah, m'intéresse pas c'est les trains qui sont en retard qui m'intéressent. est que loolu tey lañ koy tey nga <laughs> du tey laa ko gëj a mm-hmm. ñun dañu war a am. Euh, média de mhm. parce que dañu développé gul euh, war nañu yar nit ñi. d'accord ci waxu politique yooyu sax yéen war ngeen taxaw xoolaat seetlu ne mais attention gis naa temps yële ngeen ne revue de presse war nañ ko toog xoolaat. pour pour normaliser ko. indi ay standard et je pense que aussi jot na mhm. tey ñu ne ñun politiciens yi ñu ne mais est-ce que ñun suñuy langage ak suñuy message yi ñuy joxe waruñu toog nag léegi seet ko presse bi est-ce que ñun émission politique yi ñu wàññi ko indi ay émission développement indi ay kii indi directeur SENES indi directeur hydraulique indi directeur Senelec ñu ngi non dinañ ko def mais à l'heure de journal pour mhm. pour pour deux minutes trois minutes mais je pense que on peut faire je vois aussi il a les affaires de la cité hein mhm. je suis votre télévision mais mhm. je veux dire benn émission la uh-huh. Euh, sur euh, un mois. d'accord je pense que yooyu yëpp aussi bu ñu ko loolu affaire télévision yi la loolu moom ak rajo léegi ñu dellu si waat na da ni ma yéen a ngi inauguré yéen a ngi liggéey alors lu ñu mën a teg loxo wax ñu ko ñu xam ko. mais mais li ñu mën a teg loxo dafa bari na xam nga bilan dafay am d'abord man li may tuddee bilan immatériel boo xam ne wax dëgg tey Pape après trois ans de gestion. Euh, économie Sénégal ñëpp d'accord nañ ne économie bu baax la bu dëgër la. boobu mhm. boobu boobu déjà lu am solo mode de gouvernance bi tey ku xool gouvernance bi nga xam ne moom la ñu yoree Sénégal en <coughs> terme de bon gouvernance malversation yi wax dëgg yàlla ah wàññeeku na. mais nan nga xam ni wàññeeku na. ah mais mais xam nga bu njëkk bu fekkente ni def loo non def nañ audit parce que xam nga tey boo xoolee boo xoolee tey. waaw les rapports d'audit IGE. Mhm. ARMP. Euh, la la cour des comptes loolu mooy wane ay malversation parce que foofu lañu ñu daan xamee ci rapport yooyu ñu daan def ay audit d'approfondissement après yóbbu dossier yi tribunal. tey wax dëgg yàlla euh, macha allah loolu wàññeeku na euh, pasar pasare alalu réew mi wàññeeku na. est que lu ñu pasar pasare mi ngi fi. mais bien sûr Sénégal dama ne la tey tey à ce jour. 1871 milliards de francs CFA le partenaire économique yi les la communauté internationale indi en soutien PSE ci ci ci jàppale Sénégal ci PSE. 1871 mhm. xam nga loolu. 1871 leer na monsieur le ministre. 2008 wow. dernier groupe de Paris 2008. Mhm. 5 mhm. pour 5 ans le Sénégal avait bénéficié de 1100 et quelques milliards. ñun en moins de ñun ñun février lañ jógee février 2014. Mhm. donc loolu daf lay daf lay wan que ne parce que nit du fecc yàlla naa de. communauté internationale du dugal xaalis bu bëree noonu mukk ci Sénégal te amul fu mu ko teg. Mhm. am gëmul économie Sénégal. loolu mhm. mook au moins benn preuve la sans compter nag euh, tout ce que nous avons essayé de faire pour rationaliser le service public les effectifs. Euh, jéem a créer des condition euh, de du renouveau de l' administration et cetera et cetera. loolu yëpp ay bilan loolu yëpp mooy lan pour mu aussi parce que dañ lay laaj. ne dama la dama la commencé di waxal. bilan bilan immatériel bi. waaw c'est-à-dire que euh, effectif. service public mooy li nga ci teg loxo te mu am njariñ. te mu am njariñ. waaw <clears throat> maintenant boo demee ci bilan matériel bilan matériel bon je pense que projet social président Macky Sall kenn dootu ko waxati tey le vocabulaire en matière de soutien des couche vulnérables dafa changé. couverture de maladie universelle euh, bourse de sécurité familiale euh, et cetera dafa changé cest dire que tey la couche vulnérable quand même des populations démunies Euh, sans compter les appuis indirects sur euh, le loyer sur le, le salaire et cetera vraiment il y a des améliorations significatives. en, tout, cas man man maa ngi doon xaar nga yokk ci beneen parce que ku fi toog rek comme ni ma leen koy waxee souvent doo paase loolu. doo paase non doo fa génn doo génn déglu ma alors te ci nekk sax pour mu ne pour mu nekk lu rek problème non da nga bëgg rek xam nga waxoon naa la léegi économie bi waxoon naa la léegi projet social dañ dem ci infrastructure. ñu dem ci infrastructure euh, euh, bu ñu jëlee les projets autoroutiers waaw tey ñoom ñu ngi fi bàyyi euh, jam ñaajo autoroute bi ba jam Diamniadio ça fa ay trente et quelques kilomètres ñun déjà nous avons un projet en cours de réalisation monsieur le ministre bu ma wax projet itam. non mais mais écoutez xam nga nag Pape. xam nga benn affaire non non attends c'est-à-dire que. Ah, allez-y allez-y soit on attend cinq allez-y ah, allez-y soit on attend cinq ans ou sept ans. pour faire le bilan d'accord ok. ok soit on fait le bilan intermédiaire donc on te donne les projets en cours de réalisation. ok parce que loolu lañ la mën a. waaw allez-y mënuñu mënuñu jógee ci économie boo xam ne yow xam nga ni mu demee. parce que ci dëkk bi nga nekk. waaw waaw. redressé ko ba fii lan nga doon wax ci autoroute bi nga nii. Euh, euh, déjà autoroute Diamniadio Mbour AIBD dañ koy defar. waaw AIBD Mbour dañ koy defar. Mhm. Mbour Somone autoroute dañ koy defar. c'est acquis. Mhm. c'est-à-dire que vraiment c'est des c'est des lancements de projet. d'accord mais c'est acquis c'est-à-dire que du ma la laisser acquis mooy. Mhm. Euh, am nañ contrat financé nañ ko am nañ ko ko war a defar et cetera. bokkul ak les projet à venir. autoroute euh, Dakar Thiès ba dañ koy defar 416 am nañ financement. am nañu entreprise bu ko war a defar et cetera et cetera 416 milliards et quelques. c'est-à-dire dañuy da ngeen xeer bi ba pare da ngeen teg xeer bi ba pare doo dem ci financement bi. non non non. parce que moment bi ñu tegee pose pierre bi ak bi euh, président xam leen ni am nañu financement bi def na 6 mois presque. non non attends le financement sur le principe était déjà acquis après bi ñuy négocier ba ci biir ba fixer affaire ba pare y eu des problèmes pour revoir le mode de financement. d'accord. par imputable à l'État du Sénégal donc loolu day am ci contrat léeg-léeg nga dem boo war a def benn affaire bon après nga ne non bëggatuma ko defee nii laa koy bëgg a defee nii laa ko mën a defee ngeen toogaat waxtaan mais non sinon du ñu def bay ay ay ay pose première pierre yow xam nga ne Touba kenn mënu ko kenn mënu ko foye ah. kenn du du ci def ay yoo xam ne ëpp naa foye voilà kenn du ko foye sax jàpp naa ne nit ku yemb du ko ma ne jàpp naa nit ku yemb du ko foye mais après loolu nag la gars yi rétracté wu ñu commencé di négocier <laughs> a fallu euh, chantier pour que ñu ñu ñu dépasser yooyu problème donc vraiment en moins de mm-hmm. trois ans mm-hmm. logement sociaux comme da nga bëgg bilan bi ñuy ñëw fii dañ fi fekk euh, euh, euh, projet jaxaay mm-hmm. ñu waroon def 2000 logements ñoom ñu def ci 1800 et quelques logements àggalewuñ ko avec un coût presque à la limite bu ma ne abusif mais excessif d'accord ñun ñu ñëw non seulement mottali nañu euh, les 2000 logements c'est-à-dire def nañ ci 200 et quelques logements. Mhm. Euh, mais def nañu Tawfekh Yaakaar. d'accord 2000 logements en mhm. moins de trois ans. Mhm. ba pare nag déplacé déplacer 19000 personnes dans des conditions très acceptables. inondation parce loolu aussi dañ koy wax. bi ñuy ñëw fii dañu fekk dëkk bi fu ñu dem mu mu mu taa. waaw ñu ñëw andil leen plan d'urgence plan décennal mhm. pour inondation mhm. wax dëgg yàlla ku dem tey euh, côté Géejawaay mhm. dem ay Wàqinaan dem ay Yëmbal dem ay Cuuruur d'accord di nga xam ne bul fàtte itam ne mu daan tawee wàññeeku na am na taw ko daaw taw ko daaw jëkk ñun bi ñu defee plan d'urgence bi ñu ko commencé. am xam ne itam jarul ngeen koy bàkkoo parce aussi na mu daan tawee xam nga li ma la bëgg li ma la bëgg wax ne du ñu bàkkoo sax ñun xaalisu Sénégal yi dañuy liggéey du suñu lu jógee suñu poste mais deuxièmement loolu moo ñu war mais comme dama wax ne waxal bilan. dama koy wax. avec modestie et humilité. mais wal na ne quand même ñu ngi liggéey. c'est important. Ah, réforme universitaire yi ñu fi dugal. Mhm. réforme foncière. réforme de la décentralisation. d'accord mais quand nag wax dëgg yàlla. Euh, tooguñu rek réforme yi nga wax yépp ay coow la indi. mais ba amul benn coow non non réforme universitaire bakkan des mais loolu réforme foncière non non non moom ñu ñu taxaw ci réforme universitaire. depuis Sénégal existé ba léegi. waaw ñaata université la Sénégal def lu ñuy wax ne lii université norme internationale la benn. te boobu sax defuñu ko parce que université de Dakar defe naa 1956 lañ ko fi def mhm. ñun ñu indi la ren programme ficelé appel d'offre fait deux universités pour cent trente milliards de francs CFA. waaw mais franchement je pense que bu ñu toogoon fii di ko wax ba suba. ok du jeex d'accord alors ci lu baax <laughs> ci lu du jeex. du mën a parce que non ci lu bon itam fii ba suba du jeex. parce que dama la ci jox exemple bu ndaw rek. barki Demba Ndiaye la ñu toj fii ay këru jàmbur fii ci Yoff. fii ci aéroport bi. ay kër yoo xam ne ay nit ñoo fa dëkk ñu ne leen génn leen wala ñu toj ko nit ñi di ci rey seen bopp ni duñ fa jógee ay kër yoo xam ay nit ñi ngi fa ñu la wax ay nangami kër kër cest à loolu il faut que mais lu bon la wala loo xam ne nii est-ce que est-ce bi dafa jaadu wala jaaduwul non xam nga loolu aussi c'est c'est c'est relatif ki jënd kër non c'est relatif bien sûr fan ko jëndee ki jënd këram ki hmm. jënd kër ñu jaay ko kër nga naan ma nga jël dossier boobu nga xool ko attends mais da ngay jël dossier bi rek nga xool est-ce que ñiy tabax bon d'abord fan lañ tabax miir de sécurité nga dem toj ko nga toj miiru aéroport puus miir bi après jël terrain yooyu nga xam ne ay terrain wu la nga dem jaay ko kañ ko jaay amul kayit est-ce que gis nga kenn ku ci ñoom ku la génneel kayit bu leer ne la man am naa titre foncier wala bàyyi. non koo ci wax mu ne la titre foncier global la te loolu gis nañ ko. titre foncier global au nom de qui au nom de du Sénégal. non cest à aussi il faut mais xam nga ne ñun nag wax dëgg yàlla dem di tëj ko jàmbur koo dimbalatul dootoo ko doo mais bu loolu amee c'est parce que c'est des problèmes de sécurité aéroportu Dakar aéroport international la dañu koy auditer loo am sur le plan international ba ñu ne la yow comme hôtel hôtel 5 étoiles nga am tey c'est pas acquis définitivement bu ñu la nee sa aéroport aussi aéroport international c'est pas acquis définitivement c'est pas irréversible dañuy ñëw inspecter si l'aéroport répond au même nombre euh, au même norme qu'avant dañ lay bàyyil sa aéroport international mais suñu xoolee ne sa aéroport bi nekkatul aéroport international tout le monde va boycotter mais yow tiim nga aéroport bi xam nga ne wax dëgg yàlla mhm. y a de vrais problèmes de sécurité waaw mais léegi nag loolu loolu est-ce que euh, amul beneen solution bu dul toj kër yi responsable bu dee am na ku ko jaay ñu enquêté xam lan la mais ki nga xam ni leb na xaalisam wala retraité la wala leneen tabax nag njabootam je suis d'accord c'est un dossier extrêmement difficile ça il mais un état des fois au nom de la responsabilité il est obligé de prendre des mesures peut-être sax à la limite impopulaire mais nag da ngay assumer ses responsabilités li nga mañ euh, warata def mooy jalgati ay droit wu jàmbur wala yàqal ay nit mais nag ku nekk ci sa yoon ñëw nekk sa kër toog fa di la yàqal yàq bi du yem ci moom rek du yem ci état rek dafa nar a yàqal ba yàqal ñoo xam ne seen yoon newu ci dëkkuñu ci kër dëkkuñu ci kii tey bu ñu tëjoon aéroport euh, dakaar ñu ne aéroport bi nekkatul aéroport international impact bi muy am dans la marche de l'économie euh, et du tourisme et beaucoup de mais kenn xamul nan la toll. donc loolu aussi il faut ñu xam yàgg na fa benn problème. ah non man man man loolu loolu loolu loolu loolu yàggu fa ah. non yàgg na fa. mën na fa yàgg mais nit ñi dañuy construire guddi. da ngay dem terrain état mu ni li terrain état la nga dem ñu ne la bul construire amoo autorisation de construire ngay construire guddi mais loolu il faut ñu waxante ko nit ñi xam ne dafa am yoon. yoon nag dafa métti bu mu dalee sa kaw dafay métti surtout dans ces conditions nga xam ne y a des pauvres sénégalais malheureusement def 20 millions 30 millions 40 millions si si conditions yooyu dafa métti d'accord mais nag defuñu ko si yoon état li mu def aussi je pense que responsabilité bu ñu bàyyi woon noonu mhm. toog suba ñu nañu léegi nangu nañu seen catégorie aéroport bi catégorie lii la woon léegi wàcc na ñëpp dañuy daal suñu kaw Mhm. donc am na yoo xam ne aussi état mënu ko seetaan. d' accord monsieur le ministre wax nga yoon yoon dafa dafa metti euh, loolu day tax ñu dem ci benn euh, benn dossier yoon mu aju ci mbiru Karim Wade mbir mi nag xaw a jaaxal ñu bari. parce que mhm. aussi mënuñu comprendre mbir mi singli la acharnement la wala lan la parce que bu fekkente ni dem nañ ba mbootaayu xeet yi jàpp ni kat. Euh, kenn ngi ci xeet wi koo xam ne ni ñu ko tëjee ci kaso bi jaarul ci yoon dañ ko war a bàyyi mu dem dañ ko war a indil ndàmpaay dañ ko war a génne sa gouvernement taxaw yow ak keneen ak keneen nga ni ñooñu kat dañ leen a defal lobbying la dañu def lii dañu def laa <laughs> mais loolu loolu loolu est-ce que loolu ci koo xam ni au moins sax même bu dul dara yéen a bokk réew yéen a bokk leneen bu ñu demee ba ay jàmbur jàpp ni kat lii dañ ko war a bàyyi mu dem mais mbir mi acharnement la wala lan la non d'abord il faut quand même ñu wax ne Euh, amul fenn ci loolu nga wax ne dañ ne nañ leen bàyyi Karim Wade mhm. fu ñu ko wax mhm. ci loolu ñu ko wax fi ñuy sukkandiku boo leen nee bind fi ñu bind loolu ngay wax fan la ñu bind na di bàyyi Karim Wade duñ la ko wax mais looy wax nii itam monsieur le ah, ministre man maa ngi ak avis bi nga jàkkaar nga la man dama ne dama ne dama ne man maa ngi man dama ne man maa ngi ak avis bi soo bëggee après ma jox la nga liir avis bi amul fenn ci avis bi laa wax fu ñu ne bàyyi leen Karim wàdd libéré leen ko ci kaso mais wax nañu la ni ñu ko tëjee jaarul yoon dafa arbitraire. non moo tax ma ne la da loolu d' abord il faut loolu mu leer d' abord euh, ci arrêt bi effectivement ci ci ci avi bi effectivement neen nañu euh, Karim Wade am na benn phase ci détention boo xam ne ni euh, c' est pas normal mooy maanaam deuxième mise en demeure bi. Ah. d' abord il faut xam nga mu leer c' est à dire que groupe la mën a indi ci dossier. non da ma laaj dama lay. waaw ba mu jeex rek. après bu bu rek nga yokk waaw. avis avis groupe consultatif. du d' abord avis ONU. def naa loolu wax nañ ko waxaat ko effectivement dégg ngeen ne effectivement ci ginnaaw gi d' accord nañu ne du avis ONU. groupe de travail mu ngi mel ne tey yow boo bëggoon dem jënd sa kër nga mandaté ay nit na leen dem leen jëndali ma kër ngeen seetali ma kër gële. dañ koy seet ñëw wax la ci li ñu xalaat. Ah. non dañu la jox avis yàgg nañu joxe yàgg nañu joxe avis mais avis bi da koy jox nit ñi. Mhm. da nga koy jox euh, ONU. donc à travers le conseil des droits de l'homme moom mu xool ko soog ko apprécier soog ko def rapport à la limite bu dee jar na jël ay résolution wala yooyu ñu xool yan organe abilité ñoom ñooy jël ay résolution mhm. mais avis consultatif groupe de travail. ñu liggéey si anam yoo xam ne kenn waxul ne dañu lobby yi ak yooyu man boog man waxuma ko. dama ne groupe de travail condition bi mu liggéey dafa dëppoowul ak condition yi nga xam ne parce que kuy liggéey am nga charte yooyu liggéey. dëppoowul ak ñoom seen propre charte parce que seen propre charte li ci gën a am solo mooy booy def enquête yu mel noonu. dafay contradictoire maanaam da ngay fexe le tout. déglu ñëpp pour nga déglu ñëpp. groupe de travail bi dégluwul Sénégal ci benn nopp la liggéeyee. pour wax li muy wax. ba léegi Sénégal seen dossier groupe de travail bi jëlu ko. pour sukkandiku ci ñaari version yi pour mun a wax muy benn. te loolu ci seen charte bi euh, résolution 1997 50 dafa ne même délai yi ngeen di liggéey ngeen di fixer état yi pour réponse yéen groupe de travail na ngeen def le tout pour assouplir loolu délai yooyu pour permettre de sauvegarder mm-hmm. l'esprit du contradictoire mm-hmm. moo tax groupe de travail Burundi nekkoon na ci même situation que Sénégal. xaar nañu Burundi lu ëpp weer. ñun ci li ñuy jàpp gum mooy délai yi respecté nañu ko parce que délai yi délai franc la. d'accord ñu joxe ko ci délai. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu ne du ñu jël waxu Sénégal. teg ko nële d'accord alors tey Sénégal euh, bi mu waxee li xew ba pare. d'accord jël na dossier am def mhm. requête am ko groupe de travail ne leen man dama demander révision mhm. avis bi dama kon avis bi définitifagul d'accord donc loolu moom laa woon a wax ci loolu d'accord bon maintenant li ci des mhm. mooy li ma jàpp mooy. d'accord phase de détention dañ ko bu fekkente ni bu fekkente ni non non xam nga li wax détention phase boobu. waaw dañ ko passé. da mais mais d'accord. voilà mais yow di nga ne xam nga pourquoi non mhm. monsieur le ministre je vous en prie. xam nga le fait le gouvernement bind nañu groupe consultatif bi. Mhm. wax leen ne leen euh, lii kat moom mooy suñu recours. Mhm. ci li ngeen def. donc loolu dafay tekki nii euh, maanaam reconnaître ngeen group boobu léegi ñi ngi xaar kon lan moo fay jógee. appel. li fay jógee bu ñëwee. Mhm. bu nekkee nañu bàyyi Karim Wade mu dem yoonam kon loolu yaakaar naa dootul. doon lu ñu man gëm naa bi Sénégal yore. waaw ak sunu droit. ak droit international bi ñu war a bu ñu ko appliqué normalement loolu waru faa mën a jógee. d' accord léegi monsieur ministre beneen wàll parce que itam ñi nga xam ni ñoom ñooy mbootaayu xeet yi comme ni nga ko waxee bu ñu demee ba wax ni kat ñaareelu mise en demeure bi moo teguwul ci yoon loolu kenn gënu la ko xam xanaa. waaw yow ko mais xam ko wax. liñ ko parce que dañu ne ci même dossier waroo def deux mises en demeure ce qui n'est pas ce qui n'est pas évident parce que yow. non ce qui n'est pas évident nga wax ce qui parce que tamit xam nga nit booy wax da ngay mesurer say wax ce qui n'est pas évident xam nga di tax ci dossier même dossier opposant deux personnes mun na am trois mise en demeure dama lay jox exemple yu bëree bëree bëree bëri mun nga ñëw ñu ne la mise en demeure ci lii dafa ñu fekk ci sa compte xaalis bu toll nii. te bi ñuy lay def première mise en demeure bi. loolu defuñu ko ci. ma génne li nga xam ne moom laa fekk ci sa compte muy infraction bu bees mais lépp nekkul enrichissement illicite mais dama la dama la dama lay defal lépp bu nekkee enrichissement illicite ñaari mise en nu mu ci mën a amee. mais mën na nekk bu ñu gisaatee beneen xaalis xam nga enrichissement illicite justement dafa nekk infraction bu doy waar. c'est-à-dire mise en demeure moom mooy constituer infraction bi l'expiration de la mise en demeure moom mooy constituer infraction bi et pour les faits pour lesquels vous êtes poursuivi <laughs> donc man ci ay faits boo ma defalul mise en demeure mënoo ma ci mënoo ma ci yóbbu cour de répression de l'enrichissement illicite am na ci ay dossiers ay personnalité du ma sutee seen tur parce que ci télévision la ñu nekk boo xam ne li tax yóbbuwuñ ko CREI mooy dañu dem ba xool ci biir gis ne mise en demeure amu ci bien que peut-être amoon na ay faits yoo xam ne mën nañ ko potentiellement qualifier d'enrichissement illicite mënuñu ko def parce que c'était trop tard amuloon mise en demeure. Mhm. donc pour les faits yi nga may yi nga may reproché il faut nga defal ma ci mise en demeure man ci tontu. loolu mooy problème bi. donc plusieurs faits. Mhm. yu yu yu correspondre ak délit enrichissement illicite mën nañ ci defal plusieurs sommations. plusieurs mises en demeure donc c'est possible. léegi monsieur le ministre ci wàllu politique ñu ñëw wax ci li nga xam ne moo aju ci mandat euh, bi nga xam ni tax na ba calendrier républicain bi tey bouleversé wu na jaxasoo na carrément. Mm-hmm. parce que tey yow mi jàkkaarloog man tey mënuloo mu wax kañ la ñuy amal élection présidentielle. xam nga loolu ci réew rek mën na ci indi rëng-rëng mën na ci indi musiba te loolu mi ngi bàyyi ci benn nit. mooy ki nga xam ne mooy président Macky Sall. alors Nouvel Horizon bi mu génnee dafa wax ni kat am na ñu mu consulter seet na leen xamal nañu ko ni ko mënuloo laal dara ci li nga xam ne moom mooy sa mandat sept ans ko mën a bàyyi loolu tax ñu indi jeexi jaaxa ci xel mi. Mm-hmm. mais loolu tam lan la mën a jur pour yow bu fekkente ni euh, kàddoom mm, respecté wu ko euh, lan la mën a jur pour yow. non pour man du ma ne kàddoom du ko respecté ñun ñun en tout cas ñi nga xam ne yàlla may nañu ñu jege président. Mm-hmm. Euh, ku mën a sàmm kàddoom la. Mhm. xam naa loolu moom Sénégal ak loo ko noonoo noonoo wala nga am adversité ak moom li nga xam ne ku nangu sàmmante ak kàddoom la dafa gëm kàddoom daf ko bëgg di ko sàmmante loolu mooy li nga xam ne moom loolu la yàlla dogal te moom jikkoom la. Mhm. dafa bëgg li mu bëgg mooy ñu dem élection 2017. parce que moom dafa bëgg wàññi ci mandat am mhm. loolu defe naa amul benn signal boo mu mës a wane wala taxawaay bu mu taxaw wala wax bu mu wax te dëppoowul ak loolu donc man pour man loolu mooy volonté constante mooy dafa bëgg wàññi mais di nga bëgg mbir te mbir mi ni nga koy bëggee ak ni nga koy xalaatee du yombee noonu. Mhm. moo tax peut-être mu comme ni nga wax peut-être. parce que xaw ma ndax loolu am na wala amul mais wax nañ ko ci journal mu consulter ay nit pour xool mhm. nan lay jëmmalee kàddoom te wàccoo ak yoon ah ñooñu dañ koy xelal bon moom tamit dina am peut-être ñeneen ñu ko xelal mu waxtaan xool mais je pense que li fi ne pour l'instant dañu naan élection bu dee dañuy wax yoon élection présidentielle 2019 lay nekk parce que loolu moo nekk gum ci yoon moom mooy calendrier républicain mhm. constitutionnellement euh, acceptable tout à fait bu dee dañu war a tenir compte ci volonté président mettre ko en œuvre élection 2017 la war a nekk maintenant il faut quand même ñu réfléchir. ci nan lañ koy def nga ma fi ñaari dat ñaari date yooyu mooy li nga xam moo indi. Eh, mais loolu loolu mooy situation bi jarul ngay repousser situation boo xam ne effectivement situation bi tey mooy date bi nga xam ne moom la ñëpp war a tënku. Mhm. mu dëppoo ak sunu constitution dëppoo ak yoon mooy 2019. date bi nga xam ne moom la président bëgg pour bu wàccee mandat am ñu mën ko ci organiser élection mooy 2017. d'accord entre les deux dates nag il faut ñu waxtaan ba juboo rek ci ay kàddu xool nan lañ ko mën a jëmale. Mhm. Euh, bu ñu ko mënee jëmal alhamdulilah te du yàq dara bu ñu ko naree jëmal te mu nar a yàq wala mu indi ay problème man jàpp naa ne constitution daal. ci li ma xam. mooy tout le temps nañu jéem a fexe de tel sort que bu ñu koy interpréter. d'accord ñu koy interpréter dans le sens de la stabilité. Mhm. Euh, plutôt que dans le sens parce que problème yu bëri yu am ci dëkk yi booy xool ay mandat wàññi yokk mandi yokk wa moom mooy indi moom mooy indi. yokk sax ngay dégg ñaare. waaw oh, yokk ak wàññi sax loolu li <laughs> koy dégg moo tax mu moo tax moo tax mu xaw moo tax moom itam mu indi mu indi coow. mu indi waaw parce que dafa nekk loo xam ne. waaw lu masta am la. Mhm. lu ma sa am boo ko bëggee amal euh, faw nga xool lii boo ko amalee ban impact lay am. Mhm. lan lay jur nan la koy amalee. donc loolu mooy moo indi euh, réflexion yi nga xam ne moom moom la nekk mais li mu wóor mooy bu doon loo xam ne dañ koy def mu yomb te te te gaaw man day wóor na ma ne nekkuma nag si xolu président ak si xelam. Mhm. mais ni ma ko xamee xam naa ne dafa engagé wu ci loolu. te dama ci waxtaan ak moom du benn yoon du ñaari yoon. d'accord mais bu ci engagé wu woon comme ni mu engagé woo ci soldats yi dem Yémen ba mu jaral ko <laughs> un point très <laughs> <laughs> bu ci engagé woon noonu mais. Pape tu es bu ci engagé woon noonu kon kenn waxatu ko. non xam nga soldats yi dem Yémen moom. waaw moom dem la bëgg. Eh, te demuñu Yémen wax nañ leen ne Arabie Saoudite lay dem mais dans le langage toujours il faut ngeen waree ne soldats yi ils sont en la ñuy jëm ci engagé woon noonu lépp leer non engagé wu na si engagé wu na si. Mhm. xam nga droit ko di lii dafa sa njaboot la yow yaay xool on oto nga leen di dugal nan nga leen di jaarale pour ñu dem loolu amul amul entrave surtout que ñii ñii dem dañu ne ñun ay militaire lañu. dañuy yàkkamti pour dem parce que dañuy dem pour loolu mooy sunu profession. donc amul problème. foofu dafa amul problème. dafa am ay leen ñu wax nag bul wax ni ñii dem dañu wax ni dañu bëgg dem. leen ah, kenn dégg naa seen chef yi. dégg naa chef yi waaw non dégg naa chef yi ñu wax. dégg naa chef yi ñuy wax dégg naa ay quelques soldats yu wax parce que man damay suivre presse bi. d'accord waaw léegi ci wàllu politique bu ñu ci desee ba tey mu mel ni euh, ku jëkk politique gi nga dégg ci làng bu gën a yaatu euh, mu mel ni Djibo Ka ñoom Pape Diop ak ñooñu ak Idrissa sec xaw nañu xoxotal peut-être ki nga xam ne moom mooy sa leader parce que bu ñu demee ba mu bëgg a dem. yaa ngi bañ may wax en tant que porte-parole affaire politique nga may dugal ci ñëw fii pour seet si Djibo Ka ah, ah. euh, et puis euh, am nu mu ko taggee aussi ci ay qualité loolu du jàppaloo ni daal am na lu mu bëgg a bëgg bëgg a yëngal foofu pour am ci dara. non man pour man li ma gëm. waaw xam naa sax affaire transhumance président wax na si ñëpp attaqué ko transhumance apologie non li ma gëm man boo yoree dëkk. nekk président de la république. Mm-hmm. li nga war a njëkk a xeex mooy li ñuy wax consolider cohésion nationale li nga war a njëkk a xeex mooy éviter ay ay ay fracture maanaam ay euh, vision manichéenne de ñaari camp yu opposé wu nangam nangam. Mhm. du dëgg euh, li nga war a def mooy euh, am wartu mun a am camp des bien et camp des mauvais ngay xool fan nga war a jële ay ressources pour mun a tabax réew mi parce que loola leen boole. du tere bu bëggee la xeex ci politique wala bañ la votel mhm. bañ la votel mais nag loolu aussi dañ ko war a def. mais je pense que appel bi man noonu laa koy dafa manqué ci Benno Bokk Yaakaar. ressource du mës a doy. non dama ne ci biir Benno Bokk Yaakaar. non am na am na bu baax sax y a des ressources vraiment suffisantes. waaw mais du mës a doy pour nga mun a am le maximum xam nga nit ñu ñëpp. ku nekk ak ni ngay xalaatee ku nekk ak sa formation ku nekk ak sa recul ku nekk ak sa expérience loolu du ma sa doy mhm. donc nit ñi gunge la pour nga yor réew. yaa a jamais suffisamment de bras pour dire bon doy na maintenant ñu ci des ma leen donc toujours tu as besoin de réfléchir ku nekk yaa ngi bëgg a dugal mooy li président Abdoulaye Wade doon wax rek damay essayer dugal di génne dugal di génne parce que noonu lay demee parce que souvent aussi euh, boo nekkee euh, au niveau de la gestion du pays da ngay bëgg ku nekk nga jox ko chance ku nekk nga déglu ko ku nekk nga xool li mu mën ku nekk nga jàppale ko ku nekk jàppale. donc loolu daal mooy. mooy li ñu jàppee clin jëm ci Djibo Ka jàpp nga ni loolu rek moo ko lal leneen lalu. pour moi euh, du ma ne Djiboka sax parce que sunu sunu kilifa la président Djiboka quand même bon nit la koo xam ne ñëpp d' accord nañ ne bu ñu nee c'était le ñetti homme d' ci ci ñiy dund Sénégal euh, jàpp naa ne dina ci bokk. Mhm. parce que passage am parce que que parce que parce que parce que donc kooku mënoo ko am ci sa réew te nekkul sa noonu. Euh, bañu la bëgg bëgg réew mi bëgg réew mi. loolu da ngay toog ba tey nga koy doog a xam ba am foo ko dégg ba pare ngay doog a xam. il n'est jamais il n'est jamais trop tard pour bien faire c'est-à-dire même ñooñu ngay wax noonu mën nañu mën nañu ñëw Idriss euh, ñeneen ñi mais mën nañu ñëw bokk parce que xam nga li tax dañu am expérience boo xam ne Sénégal daf ko soxla. ok waaw c'est parce que da nga bëgg pouvoir ka waroo mën a bokk kenn liggéey. mën ngeen liggéey ba fi nga xam ne fa la affaire bi àpp bi yam boo buggee. démocratiquement nga ne bon arrêté naa fii damay dem. parce que ñun suñu dëkk yi mooy li ma wax léegi. kon loolu mën ngeen ko nangul waa parti socialiste. mais mësuñu ko bañal kenn dama ne suñu dëkk yi xam nga lan moo koy. tax dëkk ngeen ko nangul waa parti socialiste ma ne mësuñu ko bañal kenn xam nga lan lan mooy defar suñu dëkk yi. consensus fort le plus élargi possible sur sur un certain nombre de valeurs ak ci benn pacte d' mën nañ ci ba ci gouvernement d'union nationale. non gouvernement d'union nationale sax xam nga bu ñu koy wax mooy da ngeen di jóge ci ay crise wala ay xeex wala ay conflit wala ñàkkul ci wàllu mais majorité gouvernement de majorité présidentielle comme vous voulez noo ko bëggee rek man noonu laa koy tuddee egg waa PDS dugg ci gouvernement bi man du ma wax gouvernement boo si dugg da ngay am PDS la wala APR wala AFP wala nangam nangam waaw mën na nekk critère moo tax ma ne la politique bi dafay nekk véhicule pour yenn yenn position yi wala yenn posture yi. ci ci république bi loolu moom ñëpp d'accord nañ ko. mais c'est pas la condition. indispensable wala sine qua non. mais mais loolu aussi duñ ci dem ba yoon ñu dugal ci wàllu yoon maanaam na ki génn kaso kii génn kaso pour loolu mën a nekk. non je ne pense pas man daal li ma mm-hmm. ko a articuler autour de la compromission. Mm-hmm. et euh, en en hypothéquant les intérêts du du pays. waaw parce que loolu daal euh, li mu war a accord yi dafa war a jur njëriñ. mais warul a warul a hypothéquer intérêt dëkk. monsieur le ministre maa lay gërëm di la sant bu baax maa ngi lay bu baax a baax. bu fekkee am nga looy looy tàggu. non xanaa di la tàggu di la gërëm ci mm-hmm. émission bi. bi di commencé waat ñaan lañ ko commencé woon ñaanal yàlla Sénégal yàlla nañu yàlla jàppale bénir Sénégal bénir suñu xol yi bénir aussi suñu action yi ñuy def au grand profit des populations du Sénégal jërëjëf El Hadj Oumar Youm di jëwriñ ju ñu denk bonne gouvernance ak lu waaju ci wàllu euh, gox goxaan yi ñi ngi koy gërëm bu baax ci ni nga xam ne noonu la ñuy yombale saa su ne bu ñu ko soxlaa mu ñëw euh, waxtaan ak askan wi loolu ñu ngi koy apprécier bu baax monsieur le ministre euh, di gërëm itam sa conseiller en communication Ourey Thiam Prera nga xam suñu conseiller la bu baax itam jàppale ñu moom itam ci li nga xam ne mooy liggéey bi muy def ak yow di gërëm Babacar Babacar Fall ni mu coordonné moom aussi émission bi di gërëm Vieux Diouf ci régie bi di leen wax ni émission bi mën ngeen ko suivre euh, ci gfm point sn waaye itam mën ngeen ko suivre ci Faram Facce l'officiel intégralement euh, ñu leen di jox daje incha allah àllarba bële di ñëw bu ci àllandee jërë ngeen jëf.